union bi ëmb Karim si si Touba ak Mbacke yi seq yi beneen tànk loolee nag ñi ngi ko amal ginnaaw bi ñu jàppee ni kat réussir nañu seen objectif numéro un doonoon élection législative yi weesu. dañu dañu jëloon benn objectif doon ci liggéey dem nañ ba atteindre ko kon yaakaar naa ne fa ñu tegoon suñu tànk duñu ko teggi fa lañ koy tegaat ba tey muy continuer rythme bañ doon demee yaakaar naa ne li ñu jëm muy présidentiel yaakaar naa ne moo gën a fort législatif. te présidentielle bi incha allah bu neexee yàlla la ñu doxoon ca législative lu ko raw la ñuy dox jëm ci présidentielle liggéeyuñ nag pour jëmale ko ci ngelaw li la li ñuy liggéey am na fu mu jëm ndax dañu liggéey pour suñu président Abdoul Karim Meïssa Wade dellu si Sénégal ñëw jël cinquième président du Sénégal ñu gunge ko ba pale loolu moo waral li ñuy liggéey ñu di ko liggéey mais liggéeyuñu pour di ko sànni non non sànniwuñu li ñu liggéey mhm. li ñu liggéey am na résultat ndax liggéey nañ ba fal suñuy député dinañ liggéey ba fal suñu cinquième président incha allah présidentu union bi di Khady Fall ba tey di biral ni Karimis yi assurance la ñuy wéy xel mu dal waaye tamit ak ay pexe yu gën a ñaw yu nu amaloon ba gañe élection législative yi ñeneenu cette fois-ci di élection présidentielle yi 2019 yi jàpp nañu ni dafa sax gën a yomb ci ñoom ndax askan wa leen joxoon ba léegi mi ngi wéy di ànd ak ñoom ñun suñuy pexe moom toujours dañ ciy nekk ba jours yi ñoom ñu doog a comprendre la ñu nekkoon di ci teg suñu yoon ba dem ca élection législative wan leen nu ñu mënee ba xamuñu fu ñu leen jaar foofu la ñuy àndaat ak ñoom ba 2019 ñu wan leen li ñu mënaat mais duñ leen wax yoon bi ñuy jaar bu ñu leen wanee fi ñu jëm ñu rey tey jii nag la Karimis yi gën a gëm ni seen leader bii di Karim Wade jamono jii nekk sa Qatar tey lay gën mën a nekk seen candidat si élection yooyu ñuy xaar di 2019 su suñu sukkandikoo si ñoom amul lu ko mën a xañ réew mi. Sénégal moom képp ku wax te yàlla tax rek ak sa traayu bàmmeel li nga xam ne régime bi fi nekk ni muy doxee jaaduwul doxul ci yoon. ndax bépp adversaire boo xam ne jàpp na ne mën na koo gàllankoor wala mu yóbbu ko foo xam ne dina ko bett tey jël nañ ko dugal ko ci kaso bi mais Karim moom moom ñun Karim si ñu ngi koy liggéeyal loo xam ne bis bu wàccee Sénégal fii ñëpp dinañ xam ne Karim Wade nekkul woon Sénégal mais am na lu mu fi teg loo xam ne ñi ko doon saytu mën nañ ko bu baax a baax a baax ndax duñu seetaan mukk Macky Sall président Macky Sall di def naka sudul noonu ci élection présidentielle yi di ñëw 2019. kuréel gi nag ëmb Karim Sy doon amal ndaje bu mag si Touba ngir waajal ca ñaareelu édition bi nu jagleel Karim Wade di ko koy sargale ñu amaloon ko nag daaw te nag défi bi doonoon wàllu bindu bi si carte d'identité biométrique yi ginnaaw bi ñu ci defee jéego bu am solo tey jii kuréelu Karim Sy si Touba ne nag seen beneen objectif du lenn lu dul ànd ak structure yi nga xamante ni moo ëmb seen parti bi booloo di àndandoo di xàccandoo waaye tamit di dooxandoo. avec Babacar San.